géej naa dégg nag loolu géej naa dégg xutba bu ñuy feese fees dell ak dëgg fees dell njëriñ bu dem ci ci ci ci ci jullit euh, dëgg la am na lu mu ci wax mu jëm ci euh, alelu nit alelu lis aletu alelu jillu fan la jógee ndax ëllëg bu dajeeg boromam euh, boromam dina ko laaj foo ko jëlee ak loo ca def mhm. ah loolu nag ku nekk war na ko fàttali. ndax tàmm nañu fii ci suñu réew politicien amul dara politicien ñu fal ko ci benn poste politicien aussi fees ak millions ak i milliards kër yi am suuf si bari oto yi rawante loolu nag moom euh, ku déglu Imam Ndiour day di nga ci xalaataat sa bopp ba tuub créé bi am na loo xam ne li Imam Ndiour wax na ko xam nga dañ koy faral di di xas naan waaw inversion de la preuve kon nañ ko bàyyi non non Imam Ndiour am na lu mu ci wax

man de ku ma laaj sama alal dinaa la indil sama fiche de salaire indil la sama fiche impôt nga xam ne lii maa ko moom daa ko liggéey ñàkk ko mu des nag ñun ci suñu parti moo tax it bañuñu créer liñ ci yokk rek mooy benn nit dong atte ñu daal di taxaw ca loolu benn cour atte ñu daal di taxaw ca loolu loolu jaadowul war na nañu yokk li ñuy wax recours ndax nit nit la nit day juum nit du yàlla yàlla moo dul juum kon nañ ci yokk recours waaye CREI bi moom bu ko kenn ragal am nga alal foo ko jëlee kooku moom